particulièrement nag su ma su ma kilifa tey su ma ministre de tutelle muy le ministre Dame Diop parce que jëluma sama téléphone woo ko woowuma ko li ko waral mooy xam naa ay responsabilité am xam naa itam yitteem ak bëgg-bëggam ba su ma ko woowee fag mu déplacé wu ñëw moo tax woowuma ko mais jàpp naa ni su ma woowee ma Oumou Ba soo gi tiin chef de cabinet ñëw teew ma Oumou Ba au conseil su ma ko waxee rek grand Badara Sall aussi nga xam ne ñëpp xam nañ digganteem ak monsieur le ministre donc ñoom bu ñu ñëwee teew mel na ni ministre moo teew donc ñàkk wax bi au conseil chef de cabinet bañ ko déranger rek parce que xam naa su ma ko waxee mu déplacé wu ñëw te xam naa yitte yi mu nekk donc maa ngi koy remercier di ko gërëm di ko sant itam di gis naa ni mu may jàppale maa ngi ko si sant bu baax parce que réussite am moom laa yéene sama réussite mooy réussite am réussite am tam mooy suma réussite te ñun ñëpp suñu réussite mooy réussite u parce que président dafa jël ministère lëmb teg ko si loxo Diourbel donc li ñu war mooy ñu nekk benn ñu ànd nekk benn liggéey ba li président Macky Sall bëgg ñu mën ko def